jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontante ak mbégte mbokk yi fii nii lañ koy defalee saa ne ci seen site internet wasaare làmb ñuy jaajëfal ñëpp ko képp koo xamante ni yaa ngi seetaan wasaare làmb ñu ngi lay jaajëfal moo xam nga ni ci réew mi ak bitim réew ak fépp fu ay mën a nekk di leen kontaanee bu baax a baax a baax di ñëwaat seen njàngat làmb tey ma ànd ci Ouzin ñu fas yéene cee njàngat rek def ko comme ni ñu ko daan defee waxtaan ci bilan yi nga xamante ne mooy bilan wu yi tey ñu ngi commencé ci écurie bi nga xamante ni mooy yëmbal marin tey yëmbal marin lañ bëgg a waxtaanee waxtaanee ci lépp loo xamante ni seen palmarès ak écurie ba euh, na muy doxee Ousseyn maa ngi lay nuyu. bàyyi ji li fay naa la bu baax a baax di la jaar di la delloo sa wàccuwaay di la wax ne gëjoon naa la gis mm-hmm. ndax gëj nañ fee tase def li nga xamante ni mooy jàngat làmb mm-hmm. semaine bi nag day xaw a gudd lool ci ñun waaye ko xamul nooy def moom da fexee def li fi ne li moo fi ne gannaaw samedi ba samedi lañ koy kii léegi ñu fa di ko defalee noonu comme ni nga waxee tey ñu ñëw ci équipe bi nga xamante ni mooy yëmbal ma fas yéene waxtaanee seen palmarès bi nga xamante ni nii moo lañ fi jot a am baa ji li mooy hmm, siyaar kàbb bu baax a baax a baax kàggu borom numéro 10 <laughs> nee na mooy numéro 10 Kéberavale yi te loolu moom langu nañ ko boobu loolu langu nañ ko ñuy jëfalaat bu baax a baax a baax équipe bi yëpp képp koo xamante ne yaa ngi wasaare làmb di fi bay sa waar ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax tey nag ñu fas yéene waxtaanee comme ni ñu leen ko waxee sànq Ouzin palmarès yi yëmbal marin lal la Palma Simbalma ñu ngi am douze combats. Hmm. dama njëkkee fii rek douze combats am na deux victoires nag. Hmm. néew na loolu waaye am na dix défaites. Euh, douze combats deux victoires dix défaites mooy écrit yëmbal maa kan mooy tête de euh, tête de bi. ba tax na gis nañ fi ñi nga xamante ni ñi ñoo fi am victoire yi muy kii di nga xamante ni mooy Diop 2 ak Bouba ñoo ñoo ci am ndam. Hmm. écrit ba kan mooy tête de file bi. paa mm-hmm. boobu mooy tête de filu yëmbal marin mm-hmm. mm-hmm. euh, ñu am euh, li nga xamante ni mooy deux victoires ak dix défaites euh, man nag am naa ci njàngat boo xamante ni war naa ko mën a joxe ci suma xel mu gàtt ak sama xam-xamu làmb bu néew nga xamante ni ñëpp ñu may seetaan ñoo ma xam-xamu làmb ñoo ma gën a xam làmb surtout équipe bi nga xamante ni foofu lañu nekk muy yëmbal marin ay kilifa di diriger leen xëy na nag wolof daf ne jàpp góor jàpp ci góor mooy tax lépp jëm kanam mais fi mu toll nii dafa am loo xamante ni daf ma jaaxal ci écurie yëmbal marin parce que mu doon écurie boo xamante ni néew na ci lu ñu koy dégg ba néew na lool ñu koy dégg ci làmb mm-hmm. wala boog bari na ci luñ koy dégg ci làmb duñ ko ci dégg parce boo waxee écurie yëmbal marin da laaj kan mooy tëdd fil ba ñaata mm-hmm. mbër ñoo fa nekk lan ak lan moo te yëkk écurie yëmbal bari na ay ndaanaan yoo xamante ni ñu ngi biir yëmbal am fa écrit du ma ne leen nag tas leen seen écrit bi waaye war ngeen xoolaat bu baax a baax a baax seen taxawaay ci làmb parce que bu ngeen bëree douze combats am dix defet am deux victoires war ngaa xam ne écrit boobu vraiment lépp lu ñuy wër ci écrit làmb gisoo leen ko ci seen écrit boobu te am na ay mbër yoo xamante ne ay champion lañ écrit bu ñu dem dinañ leen dégg incha allah te yëmbal yaatuma jël leen ngeen jéem a fusionné ak yeneen écuries yi mbooloo mooy doole ngeen booloo euh, li ko tubaab di wax union fait la force ngeen booloo doon benn ngir que lépp lu ngeen di séntu ci làmb ngeen am ko ndax yaakaar naa ni couleur yëmbal doom moo leen tax a jóg mais yëmbal maree moom vraiment vraiment vraiment euh, affaire bi néew na trop trop trop trop trop trop trop Ouzin néew na trop ndax boo xoolee saison bu gàttee nii hmm. nga mën ci am douze combats am ci deux victoires dix défaites daanaka boo xoolee sax da nga liggéey bi demeewul noonu wala boog est-ce que mm. entraînement yi ñoo ngi koy teg ci yoon parce que palmarès bi man maa ngi koy doog a dégg deux victoires dix défaites maa ngi koy doog a dégg mën nañ gën a liggéeyaat comme ni nga ko waxee xoolaat seen taxawaay parce que euh, daf cee bari équipe yoo xamante ni bàyyi jili da ngay toog ba mu neex la rek am nañ fi benn bër nañ créé suñu équipe nañ wut ku jàppale ñoo taxaw mais bu amuloo coach xamante ni da leen teg ci yoon wala amuloo mag ñoo xamante ni da leen di jiite day xaw a metti ndax ay xale dong bu fekkee ñoom dong ñuy jiite seen bopp wala ñoom dong seen xalaat bopp doy na leen defe naa ne pour ñu dem waxuma duñ dem ne mais dina xaw a metti hmm. ndax loo gis lu nekk jàppal ma jàpp di am solo. Hmm. ba tax na nag war nañoo mën a ñoom jàppale seen biir su fekkee comme ni nga ko waxee am na yoo xam te mën nañ cee dem wala boog mën nañoo bool ñoom lii ñoo fee la force kenn bañul loolu. Hmm. loo gis ne su ma defee lii day day gën a dox da ngay def loolu mu gën a jëm ca kanam. ndax ñoom ñëpp boo xoolee defe naa ne ku ci nekk ndam la bëgg. te jàppal ma jàpp moom doole rek la yokk bàyyi ji lii. mais dañoo war a gën a góor góorgóorlu parce que vraiment écrit yi bari nañ trop ci làmb. Mhm. da ngay dem benn gox mën faa wàññi plus de cinq écrit wala six écrit yoo xamante ne tey buñ fusionné woon niñ bugg ci làmb mën nañ koo am mais bari na écrit yoo xamante ne moom mënuñu sax ànd. mënut a mhm. nekk. Uh-huh. parce que vraiment euh, kiri ku ci nekk euh, mu ngi fay bay waaram euh, te boo tuddee ci gox boobu tudd ikiri yooyu mais yëmbal vraiment tudd ko di tudd yëmbal mare nga xamante ne ay tey boo waxee tëdd film bi muy Pape Robo Pape Robo écurie bu mu mun ti dem dina fa nekk liggéey parce que dirigeant yi ne ci écurie bi nag loolu du du mbëri du rôle lu mbëri parce que am na loo xamante ne seen rôle la yéen ñi nga xamante ne yéen a diriger écurie bi parce que mënoo yor ay xale ñu bëre plus de douze combats di am deux victoires euh, dix défaites yéen war ngeen xoolaat seen taxawaay ñu jéggalu nag bu baax a baax a baax ci wax ji ku mu laal la parce que yéen dirigeants yi ne foofu war ngeen a gën a yokkaat jéego liggéey surtout ngeen marqué seen empreinte ci làmb ndax tey mbër bu amee buñ tuddee écrit wax nombre de victoire am ne am nañ dix victoire deux défaites sama xol ni muy seddee buñ nee mbër mi écrit bi am na deux défaites Euh, am na deux victoires dix défaites noonu la may méttee vraiment tey waa yëmbal Marin ñëpp bu fekkee dañoo am lu ñu manqué nañ dem xooliwaat ko bu dee amuñu lu leen manqué nañ jéem a xool écrit boo xamante ni tey ma nga biir yëmbal ñu jéem a fusionné ak ñoom booloo mooy doole ñu góor parce que tamit écrit boo xamante ni mënoo fa tudd sax mbër muy fayee cinq cent mille francs ngeen booloo yor ay xale euh, te te am na wax bu am solo boo xamante ni sama papa père Ndiaye mu ngi koy wax. nee na mbër mun naa jël ay millions fay ko ci sëriñ mun naa jël ay cinq cent mille fay ko ci sëriñ mun naa jël cent mille francs fay ci sëriñ mais doo gis mukk mbër mu dem ci entraîneur fay ko deux cent mille wala trois cent mille ngir kaay ma te entraîneur mooy vrai athlète entraîneur bu ñuy wax mbër numéro un entraîneur la parce que tey mbër bu amul entraîneur daanaka ci làmb amul dara sëriñ nag euh, ak mystique yooyu deuxième position la vraiment gaa baax na parce que gëm nañ ko ba ba indi ko ci làmb ba def ko ci suñu xel mais war nañoo mën a bàyyiwaat xel bu baax a baax a baax surtout waa yëmbal Marème Ouzin vraiment euh, am naa njàqare ci ñoom daal. Mhm. bàyyi ji li foofu dama fay ñëwaat tuuti. Mhm, mhm. mbëri bu ñu demee Europe dañuy yóbbaale xaalis fay coach. bu ñu demee ci salle musculation yi dañuy yóbbaale xaalis fay ñi nga xamante ne ñoo yor salle bi. kon ñi nga xamante ni dañuy bàyyi seen lépp ndax ñoom. dañoo war a yëkkati seen alal di ko partager ak ñoom. neen hmm. mais nag kaay ma wax la benn affaire de gis nga nit. Hmm. bu ko dara yombee rek mu fooyee ko. Hmm. tey ñii ñi nga xamante ne ñoo ngànk écurie man gisuma fi fii Sénégal Sénégal wala làmb boobu. gisuma ci écurie boo xamante ni nii gis naa ci coach boo xamante ni chaque weer dañ koy fay man gis teguma ko bët. amul ci làmb. amul ci làmb. pourquoi nag bu ñu demee feneen wala ñu génn dem yëkki seen xaalis di ko financer foofu te ñii dañuy bàyyi seen lépp ndax ñoom ban heure la la la coach yi di ñëw ci école yi. Hmm. quatre heures la ñuy ñëw ci école yi ba bu ñuy julli timis temps muy bàyyi liggéeyam di ko ñëw foofu est-ce mën nga koo fay. tagguma kenn de waaye su bu mel ne maam lees jaral na ma fay quatre cent mille francs pour ma vraiment pour mu yor ma man kese rek euh, jaral na ma ko coach bu mel ni per Birahim Ndiaye jaral na ma koo fay quatre cent mille pour mu yor ma yeneen coach yu dul jeex coach Rhone mi nga xamante ne moo yor équipe waalo jaral na ma fay quatre cent mille pour mu yor ma bëri na ay coach yoo xamante ni boo leen ni lim tey duñ fi jógee parce que mbër avant tout day déggal sa coach danga koy jox cër jox ko respect ba lépp lu mu lay digal ci làmb nga di ko def mais ànd ak coach boo xamante ne vraiment maa ngi moom a yam ëpp ma xam-xam mënu laa jàngal ñett kele ci làmb nga ànd ak moom moo lay indil ay palmarès yu mel nii rek deux deux défaites deux victoires dix défaites palmarès bu ñett vraiment palmarès bu bu bu bu bu bu yéemale ci làmb daal vraiment. baa ji li si yi dañoo booloo. Hmm. comme ni ni ni ni ni ni promoteurs yi amee association ñoom dañ ko war a amee association. Hmm. di waxtaan parce que nag nañu waxante dëgg. làmb ji mbëy doo nga ñoo ci tekki de. Hmm. mbëy ci gàddu seen xaalis yóbbul yóbbul seen i njaboot ñoom dañoo war di waxtaan mbëy di leen même bu leen mënul fay chaque weer ñu am lu ñu teg seen i loxo ndax gis nga bàyyi ji li métier sax boo koy jàng boo def di jàng métier ki lay jàngal métier kooku mënuloo koo fay. kon dafa mel ni écurie bi genre maanaam ci métier da ngay jàng si métier ndax boo ñëwee di nga am éducation. Mhm. amul saaga di nga entraîné teg ko ci yoon di nga ñëw di nga ñibbi heure. Mhm. soo xasee ba ñibbi boo génnee loola neex nga def kon defe naa ne kooku am na loo xamante ni moo ngi koy def ci yow. Mhm. su la yokkee doolu yokku la xam-xam kon defe naa ne kooku amelatuloo ko daal. asamaan mu wàcc njabootam wàcc liggéeyukaay bi ñëw di la jàppale. te doo ci gis benn coach ba ñeeku ñoo war nañoo xalaat seen bopp jàppale xale yi ñu góorgóorlu bu baax a baax ci li ñuy def. Hmm. am na solo mbokk yi loolu lañ leen indiloon tey ci jàngat làmb ma àndoon ceeg Ousin euh, doon wax billan bi nga xamante ne mooy écurie Yeumbeul Marin euh, noonu lañ koy defee saa su ne rek euh, di leen indi jàngat làmb tey fii soxna Fatima toog fi suba Ousin toog fi ginnaaw suba ma toog fi ak père Birahim Ndiaye loolu mooy làmb waaye am na wasaare làmb combat bu rëy bu mag a mag bu ñuy pa euh, bu ñuy waajal yëgoo ko xam naa ne. de loolu mu yëgaguma ko moom kan ak la. <laughs> ñaari kilifa yi baabu ak paate baabu moom nee na na moom bëgg na combat bi moom. ah loolu loolu loolu scientifique dina neex. ah loolu moom dina neex parce que baabu moom paate sànni na ma message bi nee na moom fi mu nii moom daa bëgg a bëri baa bi moom pare na fi mu toll kon boog dafa mel ni kon groupe Wassare dugg na dugg na dugg na ci làmb yi waaw mbokk affiche bu neex la. mbokk yi ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax loolu lañ leen indi loon ba ëllëg incha allah ci beneen jàngat làmb jërëjëf Ousseyn. jërëjëf Baye Djily kontaan naa bu baax. jaajëf kàggu.